jërëjëf a nga dëgg fistule euh, muy euh, feebar bi nga xam ne day dal jigéen ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy wasin ñoo toll ci wasin ah gis nañu ne euh, fistule en tout cas li nga xam ne loolu la ñu jàng ci séminaire bi nga xam ne plateforme defal na ko imaam yi gis nañ ne bën-bën la bi nga xam ne dafay am diggante seyukaay bi ak butitu bu euh, ak euh, euh, saw butitu butitu saw bën bën boobu waru fa nekk lan moo ko waral mooy matu bu yàgg jigéen bi bëgg a wasin matu bi yàgg xale bi mënul génn normal diri bu muy diri boppam ci ci partie boobu mooy indi bën bën boobu donc tey gis nañu juróom-ñaari mbir yi nga xam ne wax nañ ne loolu mooy sabab fistule bu ci njëkk mooy teel sey bi di teel a sëy jànq yi xam ne seen i cër matul bu ñu teelee sey a ah, mën nañu ëmb bu ñu ëmbee ah moomam bi ñuy wasin mën nañ mën nañ am jafe-jafe boobu benn la ñaareel bi aussi mooy que euh, euh, am na ci sunu aada jongal jigéen yi ñuy def jongal jigéen yooyu aussi day tax ba jigéen bi nu mu taweeku bu mu war a taweeku cëram taweeku bu mu war a taweeku dafay manqué te loolu day indi ay jafe-jafe buy buy buy wasin beneen bi aussi gis nañ ne jigéen ñi ñi nga xam ne e, wanu nañu lor ba pare du ñu e, e, saytu du ñu dem di hôpital waa kër docteur pour ñu seeti seeni seen yaram ñaareel beneen bi aussi mooy ñi nga xam ne dañuy wasin seeni kër ah beneen bi aussi mooy ñi nga xam ne dañuy wasin te du docteur moo leen di jàppale ba ñuy wasin yooyu facteur lañ gis ni ak sorewaay bi nga xam ne euh, tey euh, waa kër docteur sore na euh, nit ñi loolu aussi léeg-léeg nga bëgg a dem hôpital waaye hôpital sore na loolu aussi day indi ay jafe-jafe donc lii daal la la ñu nemmeeku moo tax ñu waxtaan ak jigéen ñi surtout li nga xam ne ci ñoom la aju mooy teel ëmb bi ak jongal jigéen ñi ak ñàkk euh, suivre seen i visite prénatale yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu taxaw ci baax ba fi waaw loolu wareefu état la ak collectivité territoriale euh, surtout communes yi fexe ba waa kër docteur jege askan bi ah ndaxte ñoom mënuñu mënuñu tabaxal seen bopp euh, ay kër docteur donc loolu wareefu wareefu état la na ci élève état bi taxaw lu bare bare ñun beneen bi aussi bi nga xam ne waxtaan nañ ko fii mooy li ñuy wax stigmatisation boddi ak joxoñ bu ñuy joxoñ ñi nga xam jigéen ñi nga xam ne am nañu fistule fistule wax nañ ne accident la nga nekk di wasin am fa jëlee fa jëlee fa feebar euh, ku am loolu dañ ko war a yërëm kër war ko fonto dañ ko war a yërëm dañ ko war a dimbale dañ ko war a faj loolu benn la l'islam tere na kuy kuy kuy ree kuy aji feebar l'islam euh, tere na kuy kuy joxoñ ak di boddi ak di beddi euh, ku feebar ki nga xam ne am na feebar boobu dañ ko war a dimbale loolu tamit wax nañ ko mais beneen bi aussi ñi nga xam ne am nañ ko bu ñu rus bu ñu rus nañu feeñ ñëw ci centre bi Kulimaro wala jege waa plateforme pour que ñu dimbale leen fistule dañ koy faj tey waa kër docteur euh, euh, wane nañ ne fistule dañ koy faj dañ koy opérer opération bi boo ko defee deux à trois semaine da ngay wér kang bën bën boobu bi taxoon ngay xeeñ lu naqari boobu dañ koy fàtt ñu defar ko ba nga mën a ànd euh, nga dellu ci sa sa liggéey dal ci sa néegu sëy loolu tamit waxtaan nañ ko ci